deuxièmement euh, foog ñu comprendre que ñin ñi def politique bi jàng jotee. Mhm. bi technocrate demee jàng ñun ñoo bokkoon classe yi de. Mhm. ñun politiciens yi tooguñ di dañ dañ doon jàng ak ñin ñi am ñin ñi amee diplôme ñu amee suñuy diplôme. Mhm. moo tax bu recrutement jotee nit ñeneen ñi amee sens dugg noonu la politicien amee sens dugg ni Sénégal sénégalais amee sens dugg waxuma la koo xam ne bàyyi na la pour politique ba. maintenant li gën a am solo mooy que dem nañu ba gagné. Pastef de na pouvoir. Mhm. est-ce que li mu diggéen mu ngi def banque sa mhm. mais Ousmane Sonko li mu jël jokk ñu nga xam ne li gën a stratégie li gën a stratégie joxu sax koo xam ne daf ko jege on a combien de ministères de souveraineté au Sénégal on a cinq ou six. nous avons le ministère des forces armées. ministère de souveraineté Maintenant, nous xam chaque semaine ils font deux réunions avec le président de la République boo mhm. xuma ay ministres qui ont des dañ réunion conseil ministre ministres, non sont des gens chaque semaine ils voient le président et chaque semaine deux fois pour défendre contre rendu l'amour qui xew exactement mhm. c'est le ministre de la justice mhm. il n'y a pas de pasteur mhm. on est d'accord là-dessus non on parle pas ah, de non non non non non non non non non non le président non est non à la non le non non non est non à non non non non non non non poste fii même boo fekkee chauffeur présence poste la rek. poste de direction. poste de euh, direction yi grand gis nga ci wax. parce que grand parce que ministère. loolu ay nomination lo xamanteni le premier ministre il est habilité à la faire loolu amuñu ci problème. comme euh, neex na nommé mais ñun ñu ci. Euh, poste de haute direction yi nga xamanteni ñu ko doon wax. en l'occurrence la RTS. Sanwa Sanwa ak yeneen ak yeneen. boo ma bàyyi ma yeggal di nga comprendre. Mhm. y' a pas poste plus élevé que ministère de souveraineté dans ce pays là. Mhm. ak poste bu mënta am. y' a pas poste plus élevé dans ce pays ministère de souveraineté. Je ne dis pas ministère, mais ministère de souveraineté. Mm-hmm. On prend ces ministères qui ont été en bi. Mm-hmm. de mm-hmm. se le ministère de l'économie et finance. mu jokk beaucoup de APR. est-ce que ma passé plutôt xamul lu lu muy dox newu ci que CV mais on te promet rien. Je suis le ministère de souveraineté le ministère des forces armées Je koo xam ne mu figure dans ce pays là pour mu je ko diriger mu le ministère euh, comment encore de l'intérieur Je koo xam ne bokkul ci pastef laalul ci pastef yaa ngi comprendre mu jël euh, euh, yenn direction qui xam yu jokk ñoo xam ne bokkuñ ci Pastef waaye yaa xayti a ba ba ba pare Pape Alé Niang bokkul ci Pastef bokkul ci Pastef <laughs> ba ba pare ba pare ba pare ba pare Pape Alé Niang képp ku journaliste war tu dois être fier de pap Alé Niang hmm. képp kuy journaliste ndax lan waaw écoutez-moi Pap Alé voilà quelqu'un qui aurait pu être riche dans ce pays-là hmm. voilà quelqu'un qui aurait pu faire comme tous ces journalistes comme tous ces maisons de la presse là ñi nga am alal yu fay impôt ñu leen jox ay peut faire plus que eux parce que papa Ali leen ëpp xam-xam parce que journal d'investigation lu ñu am comme info duñ métier dangereux ci ñu parce qu'il fait de l'investigation su ko bëggoon nekk milliardaire mu milliardaire su bëggoon nekk riche mu nekk riche su bëggoon dawal rafet dawal yi su defal ko ay télé defal ko ay defal ko encore euh, mais les autres ont négocié Pape Aligna a accepté d'informer juste et vrai joxe ay information kenn kenn du ko wax alaikum » parce que xam na lu muy problème Il fan la koy ce gars-là aujourd'hui parce qu'il a défendu aux côtés du peuple Xeyna na lu muy wax dañ naan arrangé nguur gi mais kenn mësu ko jàpp ci li nga li nga wax ni amul aujourd'hui on prend ce on prend ce digne fils du Sénégal. ci lan lañ ko doon jàppee.

day nëbb pass yu mu yoroon mu ñu koy jox pour avant ma gars yi. mais topp nañ ko fi woon di wax ni que fausse nouvelle lay. ban fausse euh, nouvelle lañ ko tey rapport gendarmerie boo xamante ne dañu ne rapport bu ñu defar la bu bokkul dara ak rapport boo xamante ne moo génnoon. boobu aussi dafay jaar rapport bu rapport bu baax la yoroon son problème à lui c'était kan moo la ko jox. d'accord léegi si loolu non Adama bala mo continuer bala nga marqué pause bëgg nga taxaw euh, parce que euh, affaire Pape ale bi ñew na amna je crois avant ñuy dem pause waxon nañ ci la à chaque fois Sonko ya ko wax da doon yor euh, mu ngi doon contrôler dëkk bi je je répète les mots que vous avez utilisés à un moment donné mi ngi doon contrôler dëkk bi yor lepp lo xamantene ni nii mi ngi koy ñu mi ngi ko xam dañu ko doon neub wa ci loolu lay ñew non sama question bi ñukoy laaj fan la ko jullee euh, moment boobu noonu comme ni nga ko waxee ci Pape Alé Sonko mu yoroon euh, document lépp loo xamante dañuy wax confidentiel la mu mën ci jot accéder si euh, Pape ale la même chose comme ni nga ko waxee est-ce que tey yéen une fois au pouvoir ngeen nekk ci nii su ngeen gisee keneen mu yor document yoo xamante ne top secret la vous allez le le poursuivre pour détention de document boo xam ne top secret confidentiel la est-ce que di ngeen ko mën def bu boobaa. il faut que nga djému xam. fi ñu jógee ak luñu dal ak lan la autorité nek def. soo ko comparé doo ci am ay jeexi yaaxa so gissé document top secret gaay dem diko ko ce sont les patrouilles qui sortaient ce document pas patrouille dans le sens de Pastef. moy des sénégalais ñi nga xam ne. dañ fi gis ñu def lo xamné lu jaadul yoon. mais seen liggéey may loon ñu génne di ko wax.

je pense que c'est ce foofu la mën a yem. que képp koo xam alerté pour le bien de ce pays là. protégez-moi ce monsieur là. mettez-moi une loi votée à l'Assemblée nationale pour le protéger. je pense quelqu'un qui est dans cette optique là. il pas nañ fu mu dans l'avenir kon qui bu mu jaaxle bu génnee euh, information boo peut-être euh, dañ koy considérer comme top secret puisque moom dafay def loi boo xamante pour protéger. les lanceurs d'alerte non xam nga que top secret. Mhm. top secret ak information génn ñaar affaire beaucoup là top secret c'était que les gens voulaient utiliser le cachet top secret

réew mi tey ma question est de savoir yéen vous êtes au pouvoir ak lu mu meun di doon une fois muy document top secret rek nit ki yor ko. tay mu génnee ko wala même moom bu ko génne mu jaarale ko tay ci presse comme ni ngeen ko dam defee mu joxe est-ce que day am poursuite est-ce que c'est logique mu wara a mën mo am poursuite est-ce que di ngeen leen meuna top aussi si genre lancé ñu àgg ak sénégalais ba ba bu ñu ak sénégalais yi. hmm ba fonctionnaires mhm. am am am nécessité. Mhm. besoin de des documents top secret du sont àgg sénégalais d'accord so gisee gars yi des documents top secret moy que dañ doon def lu neex. Mhm. ba paré teg ci top secret. so xolé l'histoire des 14 milliards. nga xol l'histoire de l'argent du Covid. nga xol l'histoire des documents sur la vente. Euh, des immeubles de l'État. l'histoire de Gabi Pérez l'histoire de lancer des armes au niveau au niveau au niveau de la présidence à partir du ministère euh, euh, de, l'environnement. mooy les 45 milliards. mais lolo, am Sénégal ne ko ko supporter muy jàll. ñun loolu lañ dul sénégalais mu am besoin de donner de documents, secrets top secret mais personne ne souhaite d'être dans un pays. où les documents estampillés top secret mm-hmm. soient divulgués mais amna fumuy tollo, amna mhm. fumuy tollo. Mhm. les patriotes qui le font ils le font par par, par la mort dans l'âme mhm. parce que dañ koy naan man jaral na ma def ko ñu jàpp ma ma perte sama liggéey que ma bàyyi dëkk bi que deux personnes diko taal ou bien ma dekk bi deux personnes ñété la amuñu un franc di partager six ou bien mille milliards ko continuer di jall. et tu viens de dire que c'est illégal. ce que je te dis je dis tout ce qui est estampillé top secret. Mm -hmm doit rester dans le secret. Mhm. mais je répète encore. Mhm. il y a des sénégalais des ne ba ñaawte mhm. def lañ qui ont ñu ñu pour sauver le Sénégal. nga yaakaar lim leen jaraloon tey pour mu sauver le Sénégal suba mënu ko jaral ñeneen. du non probabilité la. non dañuy waxtaan probabilité la bés bu ñu demoon supposons ne duñ fa mais bu ñu ba àgg fa sax est-ce que di ngeen mën taxaw pour mën leen. Euh, duñu amul amul tam àgg mhm. déjà président man voté le loi sur pour protéger les lanceurs d'alerte. Mhm. maanaam mooy que lan la man tey su ma nekkee fii ci euh, diaspora di liggéey fii mu nekk agence de l' état ou bien structure de mm-hmm. directeur def lu ko neex mm-hmm. su ma neexee mun naa ñëw jox la information en tant que journaliste nga naan demal nga naan diw ak diw xew na fa mm-hmm. jox la information nga wakku tu lances l' alerte léegi si revenons ci alerte boobu naa boo lancé l' alerte les gens comme comme comme loi la y aura des mécanismes pour que ku bëgg a signaler yow nan ngay signaler loolu yëpp ça sera la loi. mais nekkul ne fum la neex rek nga tok fa signaler wo fa. je ne peux pas mënuma ci sori parce que loi la dafa am lo xamné les mécanismes ci bir lay mhm. mais ce qui est important c'est que les Sénégalais ont la possibilité. Mhm. de donner l'information à qui de droit. Mhm. pour ñu jéem a effectivement ndax am fa amu si bobu lay yam bi dernier point ci lanceur d'alerte pour ak diffusion de nouvelles yoy pour revenir en arrière sur le cas de euh, l'activiste Bajahate, bi nga nous dañu point mais à la fin euh, avoir les documents comme niñ koy waxé mu doon point euh, kër yoo xamante ne daf ko wax que Ousmane Soxlo Sonko daf ko yor euh, de wu ko ci euh, déclaration patrimoine ba mu defoon 2016 de kër googu existé mu andi documents yi devant le procureur ak euh, notre président lo fu mu mujjee am na trois mois de prison ferme lan nga sa gis-gis ci boobule kii. xam nga Bah Diakhaté. Mhm. bëgguma sax di wax. di personnaliser. Mhm. Parce que je pense que est-ce que la personne mérite qu'on parle d'elle exactement surtout ci liñ ko doon asgo da ngay moytu yenn yi xam nga boo xoolee daanaka ba information yi mu jox yi mu live am il des gens pour dire des comptes vérité mm. am na loo xam ne sama teggin mayuma ma wax ci caméra ou bien ci mm. micro mm. par rapport à certaines insalinités yu mu doon collé nit ñi mm-hmm. ci li mu Sonko oh, xam histoire de Ousmane su nekkee vrai su nekkee faux loolu justice li gën am solo mooy que am lu mu doon wax ñëpp xam nañ lu di dégg. comme je ne peux pas le dire à la suñu suñu coupé naa la ko wax. Mm-hmm parce que par respect à cette personne là. waaw mais xam nga yooyu noonu dañ ko écarter moi je reviens euh, sur euh, euh, parce que amna ay détails yo mais on revient sur luñ ko topé en fait liñ ko topé ci lima bëgg lima ma lima ma dul génnee sama làmmiñ ci micro bokk na ci. parce que dafa am yo xamné bu féké vidéo bi mu waxone ngay wax mu jëm ci Ousmane Sonko vidéo bop il paraît biñu démé dañ ko disqualifier parce que dañu né dafa bokk ci ya nga xamanténi ni nañ amnistie won depuis 2021 mille vingt et nga xamanté wax yu mel non mu wax ko ci amna ya nga xamanténi né dañuy ñiy woote eh, bokk ci yenen parti clan bo xamantene ñom tamit dañ doon wax yenn yu eh. ñaaw yo xamantene c'est vrai que lu ñaaw kenn du ko cautionner mais bari na yu fi xew on voudrais voudrait pas man bo personnellement je voudrais pas y revenir si mais ci mais je dis par respect mhm. à notre responsable politique notre président Ousmane Sonko mhm je dire certains propos à la, à la, à la, à la, à la, à la au niveau de la télé. Mm -hmm. mais li am solo am solo. Mm-hmm. su état du Sénégal ñi nga hamne mom, amna am na avocat di ko layol dem nañ ba jame Bah Diame Diakhaté dañ ne reconnaître que da nga diffuser diffusion de fausse nouvelle. Mm-hmm. C'est parce que hamne nañ fausse nouvelle là. gis nga Ba Diakhaté mii. Mm-hmm. Bah Diakhaté. Sénégalais bu ñu ko baalul. chaque semaine am un Sénégal lambda bi ñëw porter ko plainte ñu jàpp ko. Mm. chaque semaine ñaata plainte la am jamono gi ni. ñi nga hamne yonu yoonu parti politique newu ci. xam nga dëkk bi nii tu peux être activiste. Mhm. mais il faut être intelligent dans la vie. Mhm. waxal mhm. waxal mais waxal waxal deg. parce que si tu wax dëgg chaque jour nga am loo wax. mais li qui est am su li li que des hommes politiques. tapis dans l'ombre te donnent de l'argent pour te demander attaquer alpha ou attaquer bêta. loolu bépp politiciens, pour bépp kii euh, bépp liveur. bépp activistes, bu ko bàyyul. ci prison ngay prison parce que. Mm-hmm. ce sont des gens qui viennent de perdre le pouvoir bu là qui avaient des milliards. Si mm-hmm. vous yow da nga jeune ils sont prêts à donner des millions pour vous. demal sagal ma diw. excusez-moi demal ça ma diw maintenant si vous pensez que ça peut passer. Mm-hmm. faites-le. maintenant si vous le faites. nous woo une ñu ana preuve nga na amoko dëkk bi ak lu mu dëng dëng dëng. Mhm. am na ay charte am na ay règlement. pour revenir ci même lancé boobu comme ni nga waxee activiste parce que foog naa ku nekk ci ñun am na yi nga xamante ne war nga ko bañal sa bopp war di ko jomb parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk euh, dëgg la te wax bu ñaaw kenn du ko cautionner qu'est-ce que vous dites euh, de l'affaire puisque yaa ngi fi te ñoom dañuy woote woo yéen la ñu bokk balaa ñoo dem rek ñu def ci opportunité mooy euh, le fait que Ousmane di ne moom financier na pour ñu defar cocktail molotov lak ci kër lak ci auto té muy woté wo Pastef qu'est-ce que vous en dites. Euh, le président Ousmane Sonko jox na réponse bi semaine passée. Mm. képp kuy saga bokul ci ñun. maintenant euh Pastef dafa bari Pastef. Mm-hmm. Pastef de bari Pastef. dafa am Pastef bo xamné mm-hmm. moy le noyau dur. Mm-hmm. doole mos a gis ñuy saaga do le mës gis ñuy xasté mhm. do le mës gis ñuy wax lu leen neex ou bien do mës gis sax ñu sigg xol nit mhm. je peux en citer beaucoup mhm. que tu connais très bien ay ñom El Malik ay ñom Birame Souley ak ñeneen ñeneen mun nañ am écart langage mais jamais il insulte quelqu'un jamais ay ñom citizen ñom nga en a beaucoup mais jamais nga gis ñuy saga bu ñu ñëwee ci télé bi sax gaay yi manque respect dañuy tok di rétane des gens très polis très corrects do mës gis ñuy saga ci biir ñooñu am na ñoo xam ne sax xamoo leen parce que ñu ngi demee ay nit ñi naa ñu fan lañ jógee. Mhm. ñëpp c'était des cadres dormants de Pastef qui était tapis dans l'ombre qui faisait le job correctement. Mhm. mu am deuxième Pastef mooy xëy na ci nga bokk xëy na kii wàdd ci la bokk. Mhm. mooy sénégalais bu toog këram. bu toog këram. gis dëkk bi ni muy fonctionner neexu ko mu naam foog mu changé suñu ne levée de fonds mu naam ah am naa benn 1000 francs bàyyi ma envoyé 500 francs ci biir mhm. mais yoonam newul ci Pastef du ñëw du ñëw réunion mhm. amul carte membre yorul t-shirt te Ousmane Sonko bu wootoo fi suba ba ngoon du ñu mus a ñëw mhm. mais il veut que ça change mooy deuxième Pastef mu am troisième Pastef composé de deux composé de deux groupes mooy les influenceurs ak ñi tuddee seen bopp anticorps mooy booy nekk ci réseaux sociaux yi ñoom gëmuñu maa Samba gëmuñu maa Demba Ousmane Sonko la ñu gëm soo leen attaqué ñooy fayu soo waxee Ousmane Sonko ñu fayu la ñoom ñoo tuddee seen bopp anticorps maye leen connexion jëndule leen ko ñoom ñoo fi nekk di aar projet bi ñu tuddee seen bopp anticorps mu am ñoo xam ne mu am sénégalais aussi ay liveur ay tiktokeur ñi nga xam ne dañ ñëw accompagner président Ousmane Sonko ci combat boobu noonu waaye bu dee am nay anticorps am na ay liveur ay youtubeur ñu accompagner Ousmane Sonko mm-hmm. qu'il le fasse bien qu'il le lan la Sonko mun ci ñoom wa mais est-ce que tamit euh, comme ni mu nous tey jii nii wax ni ki kuy saga bokkul ci ñom euh, ñom ñu ngi di ragné depuis 2021 ba ñu ñuy wax naan dañu suñu kilifa ñëpp euh, live yi lañ ko doon est-ce que depuis vous, ba tamit comme ñom nous lañu bëgg tax mu du doon mu une bonne fois pour toutes di ma saga adressé message spécifique nga xamante ne ñoom dinañ ci jaaree xam xam nga politique de kër diine ba nga naan ba nga naan nit ki bu ñëw sama ziar bu ñëw sama daayira <laughs> mais am nga droit ku am sa carte membre mais comme yow ni nga waxee waaw parce que est-ce que dégg ngeen Tunkara Tunkara Pastef bokk